quotidien Assane Samb xëy jël xalimam nee na maître Malick Sall dafa violé li nga xam ne mooy secret de bi ndax moom ci boppam wurta wax lenn loo xamante ni ma ngi ci biir dossier bi moo xam nag dafay dugal Ousmane Sonko moo xam daf koy setala ndax li nga xam ne maître Malick Sall wax na ko loole nag dafay firndeel ne moom dàq na li nga xam ne mooy viol waaye nag am na nag ci dossier bi ay éléments yoo xam ne war naa mën a tax juge bi daal di koy def contrôle judiciaire Assane Samba xëy tënk kàddu yu ne en tout cas ministre bi li mu def tigu ko fenn te dafa jalgati li nga xam ne mooy secret de l'instruction bi kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu bande filao yi nga xam ne moo nekk géej waaye agent yu cadastre yi ak agent yi liggéeyee impôt domaine jamono ji nag ñoo ngi koy saax-saaxi maanaam ñoo ngi koy séddoo ndax agent yi nga xam ne ñoo nekk cadastre lu toll ci juróom ci ay yoo xam ne ñoom daggal nañu ko seen bopp te sax li si gën a garaaw ñoom ba ñu koy séddoo boobee sax bande de filao yi déclassifié guñ ko yéen kaay gi nee na tamit syndicat bi nga xam ne moo am bu ñuy liggéeyee impôt ñooñee ñeenti hectares jël nañu ko fi nga xam ne mooy waxi naan nim ñu ne déet waaye ñu jëlaat ñeenti hectare fi nga xam ne mooy golf ñu ne déet waaye ñu jëlaat juróom benn ay hectare fi nga xam ne mooy gàddaay yéenekaay gi nee na lii nag mooy tong-tong dëggantaan en tout cas li am ba desal bande filao yi nga xam ne moo nekk Géejawaay askan wi nga xam ne ñoo fa yeewoo na leen leer ne nga xam ne ñooy liggéeyee cadastre ak ñi nga xam ne ñooy liggéeyee impôt ñoo ngi koy séddoo yéenekaay gi da la témoin nee na nag magistrature bi jamono ji malaise dëgg moo fa am li am ci yéenekaay gi di réew mi quotidien mooy bi nga xam ne jëm na ci wàllum déclaration patrimoine ci OFNAC maanaam wax nga xam ne mooy sa moomeel yéene kaay gi nee na bëri na nag ay obstacle maanaam ay rëq-rëq ak ay cang-cang yoo xam ne nemmeeku nañ ko fa yéene kaa gi nee na lu toll ci 788 déclaration moom moo am Seynabou Ndiaye mi nga xam ne moom lañ dénk ko OFNAC ni ko démb la ko xam li ginnaaw nag ab atelier d'échange boo xam ne doon na ko amal ak député yi yéene kaay gi di wal fa jëree nee na tournée économique bi nga xam ne moom la ma Sall di def nan leer askanu Sénégal ne alalu askan wi la Macky Sall jël di ko dépenser ci tournée économique yi yéene kaay gi di réew mi quotidien libération enquête Vox Populi nee na général Moussa Fall mi nga xam ne léegi moo nekk au de la gendarmerie ni ki démb nag daan nañu koy installé nee na nag dina jël engagement bu leer nañ bu wér bu dëgër këñ ñi daal di li nga xam ne mooy intérêt yu Sénégal waaye nag lépp xam ne jëm na ci wàllum kaaraange ak département bu mu ci mën a doon dina xeex tamit lépp loo xam ne jëm na ci wàllu woyu geek samba boy yi yéen kaay yi ak centre d'anticipation yi loolee lépp danañu ko daal di yokk fii ak 2035 ñaar fukki junni ci ay gendarme bëgg nañu ko yéene kaay gi da la ñu xëy fekk fa militaire invalide yi maanaam ñi nga xamante ni demoon nañu guerre jóge ci guerre ba àndaale laago ñoom nag jamono ji dañoo bëgg nag wane seen bopp tey ji amal ay manifestation wane seen naqara ndax ñoom nee nañu ñoo ngi dund ay jafe-jafe yoo xamante ni maara day tali te nag jamono ji kenn lijjantewu leen yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu covid 19 bi jamono ji ma ngi yokk ci àdduna bi ndax lu toll ci benn semaine am na lu jege ñetti millions ci doomi aadama yoo xam ne amee nañu wopp ji ci àdduna bi